di de jële jëlee nañu ko ci 8 milliards 162 millions personnel ba ca cabinet bi njiit réew mi seeni dépense wàññi nañu ko dévaluation gu rëy la Macky Sall di dunduloo gaayam ya ca pale ba gaay yi parti socialiste yi wal fajir nee nañu njuum ak nooxóor yi leen di faral di féewale ñoo ngi leen di rogo jeeru guddi yu ñu toll parti bi aw na yoonu yëngu ndax Serigne Mbaye Thiam ci tànki Aminata Mbengue Ndiaye la nekk dakkal intérimam jël parti socialiste jiite ko loolee la bëgg ñu kenn ci cadre parti socialiste yi muy wax ne Serigne Mbaye Thiam na nuppulu ndax duñu ko masalalal tapirous ñoomu gis na ne ñoom ñoom la PS face au PS Aminata Mbengue Ndiaye ci bii boor Serigne Mbaye Thiam ci bee boor Alioune Ndoye taxaw ca wet ga di leen bu université Gaston Berger bu Saint-Louis di leeral ci xët mu njëkk Sud Quotidien parti socialiste aw na yoonu sànko te li ko nar moo di ña ca nekk seen jëmi bopp lañ jiital ginnaawal projet parti bi les éco nañu Serigne Mbaye Thiam salfaañe ne parti socialiste ginnaaw bi mu fësalee yéeneem ngir jiite PS Bounama Sall secrétaire général sene socialiste ne ko waaye nag ak lu man di xew dafa jot ngir ñu tànnal parti socialiste njiit sa njiital parti démocratique Sénégal di Abdoulaye Wade mer na ba kanam ngay sël-sëli saxaar le témoigne moo ko bind jëf ju ñaaw ju ñu def keroog ci siège parti bi rapport bi ñu ci defal góor gi moo merloo Abdoulaye Wade ki mu mere nag ba dàqul dem moom ci yoon porté ko plainte le témoigne nee nañu moo di Bara Gaye mi ñuy tuumal ne moo sooke woon fitna ji jolli woon ci seen dajam keroog A tey ministre enseignement supérieur recherche ren ji danañu orienté lu ëpp benn fukki junniy nouveaux bacheliers ak juróom bépp bachelier bu ko sàkku rek dinañu la orienté ci établissement d'enseignement supérieur public yi ngir tàmbali njàngale mu kaawe mi weeru janvier ci anam wu mucc ayib ministre bi sàkku ci commission bi mu liggéey ci ak mbooleem ñu ko séq te gaaw ci ngir fexe ba feeg weeru décembre lépp yemb ci matuwaay yi ñu jël ngir gunge ko njàngale mu kaawe mi ren ji sursoi nee nañu dina ci bokk ci taxawal ñaari téeméeri poste d'enseignant développé yeneen war a tëddee ministre enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne moo ki kàddoom ak maskam ci mu njëkk la mu fay xam le ne dinañu orienté ren ji lu ëpp juróom-benn fukki junniy nouveau bachelier ak juróom pëli sub ak mariage góor jigéen bi mu tas bu yàggul ba am ñu mu ca jàpp mooy coow ak mbambu ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool l'Observateur Libération ak Les Échos nekk sëyib góor jigéen yaa nga fa Libération nañu ñaar fukki i rob amoon na ci ñoom jigéen ñi ñoo xam ne ñoo newoon bàjjen ya juróom fukki préservatif ak i lubrifiant ak i maquillage ak i rouge ak ay test na ko fa l'observateur ne ko dolli ci ay fer maanaam ay bin bin dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal 7 indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement